mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor a kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor a kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor a kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam da tële tëlee ngóor a kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mën nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wàllum jabet wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ne dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyer ba mu set kon nag mu ngi noonu képp bëgg ci ngóor kàttan bii xamante ne wàllum kàttan moo ci mënti Sénégal woote leen ci numéro téléphone bi 77 240 97 97 kon nag ngóor a kàttan mooy buuru produit kàttan yi yàlla julli ci yonent yàlla Mouhamed am contentement ak mbégte lan moo xew diggante bale Gaye 2 ak Boy Niang tey ma taseeg sama doom sama xarit ndaanaan doomu ndey bale Gaye 2 mais dama ko bëgg xamal ko ko nag tey du yomb fii numéro bi tey fii la ci euh, golf suba ñu nga dem pikin Boy Niang na nga préparé mais bale Gaye 2 na préparé tey nag maa ngi fii ci Géejawaay jàkkaarloo ki nga xamante ni mooy supporteru Balla Gaye 2 ma war a waxtaan ak moom rek. ci li nga xamante ni moo ci am mais Cheikh Abdou dama naa la. waaw père maa la raw. mais yaa ngi jàmm ni tey sa digganteeg Boy Niang. waaw muy Balla Gaye li bari na. vraiment euh, Boy ñaa maye woon na fi une minute. jékki-jékki maye fi deux minutes jékki-jékki maye fi quinze minutes. léegi nag guuxal la def. lan mooy problème Boy Niang sa digganteeg ñoo non père ñaa li Balla Gaye waxoon Modou Lo. ne ko yow yaboo ma say supporter ma yab. Mm. waaye Boy ñaa si jëm boppam. moom yabut Balla Gaye ay supporter am la yab parce que Boy Niang bu demee ba naan day may une minute di maye cinq minutes di guuxalaate booba ay supporter am la yab ndax Balla Gaye ku ko am doon nelaw. Boy Niang instant yi nelawut fi mu nekk nii nelawut ba mu gisee état Balla Gaye la xam ne Balla Gaye dafa liggéey nelawut ay supporter am la yab. Cheikh Abdou te wax waxee dafa xewi. mais mbaa xam ngeen li xam ngeen est-ce que xam ngeen ki ngeen am. waaw yow père Boy Niang day dara Boy Niang wax waxee dafa xewi ba mu xewee moo yàgg moom la fi dekkelaat lu kenn defatul muy wax waxet loola fi boo ñaa dekkalaat te gis nga bu ñu ko jàppee bu subaa bu dimanche incha allah boo ñaa dina xam lépp dëgg la bu dimanche boo ñaa dina xam lépp dëgg la du boo ñaa dafa liggéey per mbaw per tamit Balla Gaye lu la mës a wax def na ko lu mu la mës a wax def na ko booy naa booy seetaan nañ ko. booy naa comme xam na ne xale la looloo tax rek xëy na mu bëgg a yóbbu bagage yi moo foo xamante ne booy naa lim a wax yëpp defu dara dara dara dara booy ba daanu. ah booy naa la regee daa daw ba daanu. Ah? booy eh? naa loo xam ne nii mosoo koo xam. loolu la gis nga booy naa ko tafatin koree. papa gi si boppam mënoo ko dawal génn. papa yi booy naa mën naa booy naa dawal génn. Eh, ah, waaw moo tax mu koy dawloo. waaw étudiant la bëggul kanam gi te Balla Gaye si kàttanu yàlla ak mbaaxam bu ko koree dina ko dóor ba mu ñibbi Pikine ñibbi Pikine dóor ba mu ñibbi Pikine ñu koo ko si almeri mooy Cheikh Abdou fii la woon ci euh, rond-point 38 bi léegi da ngay ànd ak moom ñu dem ba côté marché fii ñu jóge fa dem golf waaye nee naa leen barka rasulaay tey du yomb maa ngi fii ci marché fiñ mi yaakaar naa ni ku ni fiñ mi di nga ni golf waaye ku ni fiñ mi di nga ni Balla Gaye 2 ah ma tase kan kooku mooy kan mooy Badara rakku Balla Gaye 2 ñu bokk ndey bokk baay waaye nee naa ko billaahi loo mën a am mooy am nga problème boo dul wax kenn ndax diggante Balla Gaye 2 ak Boy ñaa yaakaar ni gars yi yaakaar nañ dina yomb waaye du yomb de ah mais Badara maa ngi lay maa ngi lay delloo ziar Père ngi jàmm ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. ma gis diggante Boy Niang ak Balla Gaye de coow li bari lool booy Niang premièrement une minute la ca maye ñu ni nii mu maye deux minutes ñu ni nii mu maye quinze minutes jékki-jékki mu ne noo moom léegi affaire bi buusu la xoma guuxal léegi li mu guuxal Balla Gaye de ak bala Gaye de guuxal ko ko da ko bëgg dafa bëgg bu ëllëgee kenn ku ne buusu ko sa borom lan ngay wax Boy Niang lan yéen affaire bi qu'est-ce qu'il y mais xam nga wax waxee daa xewoon ci jamono Ablaye Wade. lan. wax waxet booy loo bëgg a daa xew woon ci jamonoy suñu maam ab lay ba mu ne maa waxoon waxet. waaw ah mais booy ñaar da koo décalaat la ko décalaatee. ah xoolal rek joxe nga joxe cinq ba mu la nga joxe vingt cinq ah. ba mu la nga dañuy bëri temps ba mu waaw. kii daa jaaxle père. mais booy booy est que xam ngeen ci ngeen am la te na lecture te nante la. père booy ñaar Balla numéro 2 ñaari at la ko magee. Balla Gaye xaleel defagul dara ci làmb. lam ñàkkoon da koy jëliwaat. kon loo bëgg a wax tofam la. booy caaxaan baaxul na booy. Boy Niang moo gën a ridicule ci ci ak fi mu toll. lan moom mooy sel mbër bu yéeg ci kaw amagoo fa ndam. bi mu yéegee ci kaw ba léegi ci tafaatin la dal ak la dëgër numéro 2. kan la dajal. tafaatin la dajal tafaatin daan ko. mu daj la dëgër numéro 2 la dëgër daan ko. mu war a ñëw ci Balla Gaye. <laughs> est-ce que Balla Gaye ak ñoom ma ni Balla Gaye numéro 2 mën ngaa jàkkaarloog moom di wax. waaye loo ko wax tey boo demee sa baay yedd la. nga ne doo ko waxat. lan lu leer laa lay wax. Ah, booy nag dafa mel ni dangeen a naagu de. père ñun duñ naagu. lamb laa lay wax. Balla Gaye numéro 2. lu ko waay wax ci signature tey. boo yeggee sa baay yedd la bu subaa yoo ñëwee doo ko waxat. waaw kon mbaadu looloo tax maanaam 15 minutes yeeg 10 minutes yeeg 2 minutes yi mel ne tuleeg male. ma ne booy ñaa bi mu mayee une bi mu booy ñaa bi minute. waaw bi mu yeggee kër ga dëgër wax ju wér la ko wax. mu ñëw maye cinq minutes. mais papa moo waxoon ni moom bu passé cinq minutes yàlla ko yàlla lan. moo ni yàlla na ko yàlla rey. mais li Balla Gaye numéro 2 wax rek laay dellu si waat làmb jarul bakkan. waaw dëgg la ku ci nekk dangay wut ngir loo yóbbu sa kër. loolu dëgg la. yaakaar naa Balla xale la waaye xale bu mature la te li wax ñëpp dégg nañ ko. ah boo dee way jur da ngay wax waxi kilifa. waa démb dama dégg mu def communication bu am solo ci diggante yaayu Boy Niang ak yaayam que xamal ko ni ko lu mën a am ci àdduna moom dafa bëgg yaayam ba bis bu komba bi jeexee dana ànd ak ay mbokkam ñëw ba ci Boy Niang mu saafoonteeg yaayu booy Niang. déggoo may la Balla Gaye numéro 2 nit la te nit ku mature la daa am loo xam ne mature moo koy joxe. dëgg la Balla mës a séq mbër lu ñaaw. làmb nag mën naa metti tàng lool mais bu jeexee da ngeen di bokk ndey bokk bàyyi. booy Niang mooy seul mbër bu fi bëree mbër mu daan la nga génn demaat war a jàkkaarloog moom dóor ko kuur. kooku mooy booy ñaa dégg nga li ci Badara wax li ci nag mooy waa kër booy Niang nañ ma xaar ak sunu people ñu ngi ñëw ñu ngi fii ci diggante golf ak marché fii ak marché jeudi tey bés ba kenn du la. premier diggante ñaa ak Balla yi booy coow li bari torop torop torop booy ñaa maye une minute jékki-jékki maye cinq minutes jékki-jékki maye quinze lan mooy problème Boy Niang day xaar. looy wax nañ bu yàgg bi wax wallaay tallaay day xaar. barke alxuraanu karim day xaar. lan Boy Niang mutul mutu lu leer laa la wax. Eh. xam nañ Balla Gaye xam ngeen ki Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 doomu Double Less. yëgi ne ko gën a metti. yëgi nii yëgi yëgi nag Boy Niang ko gën a diis. Balla Gaye ba yàgg na ñëpp làmb ji. Balla Gaye mënul jóge si ñaay ñaay. mënul jóge si ñay yéeg si ñay ba war ko. ko koy biigan kaaju dem. laa ilaaha illallah waa mais tarki mais tarkee ngoog maa la ko wax. ana Baye Mor ana Baye Mor. Eh, amoon naa fi benn benn benn sama benn sama benn copain xaritu Balla Gaye la ana mu ana Baye eh, ana Baye Mor yow ah. Sooro non Sooro moom mooy loolu. jërëjëf xanaa sant yàlla rek julli ci yonent yàlla Mouhamed am contentement ak mbégte tey nag fii ma ñëw mooy fan kër Balla Gaye 2 li tax ma ni kër Balla Gaye 2 le grand Daouda sekk yàlla na ko yàlla yërëm te yeexañu tere jo yonent bi bu ma nee Daouda Seck adduna bépp danañ xam kan mooy Daouda Seck ci Balla Gaye 2 tey ñii ma fekk si ñooy jigéenam ñi nga xamante ni si tey bu Balla gay Moussa ñëw fii di ndékki fii lay dugg Daouda defaral ko brochette defaral ko yàpp mu ànd ak ñoom ñëw fii ci place bi di xale yoo xamante ni sii yàgg nañoo dégg daale waaye yàgg nañoo am jom di ay ñafekat fii ci marché fiñ mi ma war a jàkkaarloo ñoom rek waxtaan ak ñoom ci li nga xamante ni sii tey mooy combat bu rëy bu neex bii fi am ci diggante booy ñaa ak Balla Gaye 2 Ndeye Yacine maa ngi lay jaar. waaw maa ngi lay fay. di la ziar mbaa yaa ngi jàmm. waa maa ngi ci jàmm baax tey ni ma leen fekkee dafa ni da ngeen a sawar kontaan mbégte est-ce que xam ngeen combat bi ngeen am seen diggante ak Boy Niang ma gis booy Niang ma fi une minute maye fi deux minutes maye fi quinze minutes maye fi ay góoxal ak naa ko yàbbeeg du ma ko yàbbi noo gisee lool. ah man da loolu man yow damaa jaaxal ndax ba Boy Niang daal ma woon na fi une minute te Balla gay kenn du ko may une minute. nga kenn du ko may une minute kooku sama mbër la maa ko bëgg. Balla Gaye buñ ko masaana tëggal combat daaw daa ngi nii yal na ko yal na ko yàlla yërëm Balla gay buñ ko tëggalaan combat sans place bii lay ñëw wala nday matimaar wala ak cooga ñun da dañuy jooy barke yonent bi ndax daaw da mi fi nekkut Balla Gaye ci boppam mi ñoo ko bëgg ñun géejawaay lañ dëkk baak yonent bi te ndam rek lay am nag. nga ne ndam rek lay am. mais minute yi ko booy ñaa may ba bu waxee lii bu ëllëgee mu wax leneen lu xam ci loolu. ma ah, man de looloo ma jaaxal booy ñaa daal may na fi une minute. maye na fi 20 minutes waaye daa mel ni nag tamit dafa reculer de daa mel ni dafa dafa delloo avance de. ah kon daa wax waxet. waaw dafa wax waxet te wax waxet dafa xewi. ca ca taa kii am Wade. mais yow ah, man kontaan rek. ñun Balla Gaye ñun ñooy ay fan sam. dëgg la Balla si boppam. lekk mbër rek la ñu defaloon. bilaay dëgg defal nañu lu ne. suñu xool seddal nañu sunu xool guddi seddal ko bëccëg. Mm. ñun amuñu lu ñuy tiit amuñu lu ñuy ragal. ndax sunu mbër ku ko am rek doo dara looy daw ragal ma gis ni ndam rek ma gis ni hmm. champion ngeen am baaw booy ñaa déglu ba tuuti champion ngeen am booy ñaa ngeen yaakaar ni ab xaal la mbaa du ngeen am mbaa xaal laay ah. lay la laa booy ñaa na xam ne am na combat xam na xam ne am na combat bu rëy nga ma la dee du nalaw bu mu nalaw le premier le premier rek fii ah. day metti dana mel ni fu dina ba euh, ni noppee du dem jeex na kooku mooy Ndeye Sassine fii la woon ci fiñ damay doxantu rek ànd ak gars yi wuy ma nañ dem. yonent bi ana Daouda Mbaye non gisoon naa fi benn supporteru maa la ko wax gisoon naa fi benn support Daouda Daouda Mbaye mais ana Daouda Mbaye eh taalibe Seydi Aboubacar si bi barke yonent bi mais Daouda mais Daouda maa yaa ngi waa sa waay yow qu'est-ce qu'il y a samedi yow dimanche nga am xew-xew bu rëy bu toll ni diggante Balla gay Boy Niang nga ñëw def sayu weex di jéem a mel ni koy feetu yow xanaa bala ngaa feetu da ak ay jóge ca làmb ja déglu ma <laughs> diggante Balla gay 2 ak euh, Boy Niang mm-hmm. dama ci dégg action yu garaaw mm-hmm. une minute lañ njëkk a maye jekki-jekki ñu maye deux minutes jekki-jekki ñu maye quinze minutes mm-hmm. jekki-jekki mu naan ay non li ma ko guuxal dinaa ko ko sotti li ma guuxal dina ma ko sotti mais lan mooy seen problème ak Boy Niang ak lan ngeen nar bés ba ëllëg. Mhm. booy ñaa moom amuñu problème te ñun dañoo jommi sax parce que booy ñaa baayam dane ñun bu ñu daanul ci cinq minutes mu dee loolu lay baayam wax moom mu ñëw ne sama baay li mu wax daa tuuti ndax bu dee sama baay deux minutes sama baay deux minutes la wax ñu koy xamal nag lu rey mbuum la dee sa lu rey mbuum la dee sa loolu wax la. waaw waaw. ma gis ni Boy Niang moom mm-hmm, mm-hmm. chaque mm-hmm. li muy wax mooy tey su ëllëgee li muy wax nii day maye une minute su subaa mu maye deux minutes bu ginnaaw subaa mu ginnaaw subaa mu ni noo li ma ko góoxal ak li ma góoxal yéen nan ngeen jàngate li Boy Niang di wax wax waxeet la wala xëy na la mu jàppoon ni loolu la du loolu wala lu xew lan nga ko mën a décortiquer ni ma ko mën a décortiquer mooy ñoom amuñu amuñu plan amuñu plan parce que tey bu fekkee tey boo waxee lii bu subaa nga wax lee yow amoo plan parce que tey ki muy dajal xamu ko xamul ki muy dajeel. dëgg nee na xam na Balla Gaye mais xamul Balla Gaye 2. xamu ko à <laughs> l'âge de 22 ans. waaw nga jël roi des arènes. waaw daan Yékini <laughs> uh-huh. ba Yékini njuugee keroog. Uh-huh. sol tenue militaire. Uh-huh. daal di njuug sa baasul. wala ca Joal. si mbapat bu mu mujjee ñëw. Eh. mu ne mu ne le 22. le deux ñun ñu daan ko ñaari jël keroog. keroog la mu waxoon moo ñëwaat. xamul ki muy dajeel. Balla Gaye 2 ñun dañ koo yar mu toll comme booy bii. parce que Balla Gaye 2 dafa ni woon dafa ni ko woon man damaa ay ci ponkal. xam naa la te xamuma. voilà loolu na noon na demee. bis bi muy ñëw. bis bii ñu jëm si. ñun waaj nañ ko te pare nañ te boo ma xoolee xam ne pare nañ. yàgg nañ préparer komba bu nekk combat dootuñu jaaxal dafa daan ba dafa dafa daan le roi des arènes deux jël Modou moom mooy coow ci dëkk bi ma daan ko deux fois benn mbërë ma ci daan muy Eumeu Sène te xëñ na expérience la te danañ dajawaat loolu ñëwaguñ si mi ngi suñu kanam bis bii ñu jëm nag dañ ko waaj a waaj waaj ba xamoo sax nuñ ko waajee. le premier le premier ndax ñun dañoo ànd ak suñuy mbokk. da ngeen ak seen mbokk. voilà waaw mais Tarki noo gisee bagage yi. ma gis ni tey bés bi bés la boo xamante ni sii le premier lañ jëm ci diggante Boy Niang ak Balla te dégg naa Tarki Ndaaya genn wàll gi yëpp dañuy ñëw ànd ak Balla Gaye billaahi ñun bala lañuy topp. Balla lañuy topp ñun Tarki Ndaa ay Tarki Ndaa lañ mais ñun Balla lañ faral. le premier incha pen mbaw salaat ak ñax bokkul. Eh. salaat ak ñax bokkul te booy mooy ñax bi. ñaa mooy ñax bi. ñax kenn du ko bineegar te salaat dañ koy bineegar. xam nga nan lañ koy bineegaree. jouru làmm ji. bineegar bi maanaam mooy saafara bi buñ ko sottee ba tëj barrière yi ba pare booy ñaa barke Serigne Bamba dina way mbay. booy ñaa dana way mbay tarkindaa bi boo wax loolu nee na. ñax ak ak ak nu mu tudd ko wax ak salaat bokkul. nee na salade dañ koy vinaigre te ñax kenn du ko vinaigre man nag tarkindaa yi moom seeni i terme laa xamul lu mu doon lu ñu génne tey bu ëllëgee ñu génne leneen man li kenn xamul lu mu doon man damaa jommi sax man. boo jërëjëf tey ñu ngi fii ci euh, golf yaakaar naa ni euh, boo nee golf di nga ni kër Balla Gaye 2 mi ngi nii tout près këram ñu ngi jàkkaarloog moom euh, fan yi nag laay waxal nii. ñoom nag na leen leer ne am nañ combat combat bu rëy ci diggante Boy Niang ak ki nga xamante ni sii mooy Balla Gaye ma bëgg leen a dëpp sama micro rek waxtaan ak ñoom ci bés bi maay booy maa ngi lay maa ngi fay. ba yaa ngi jàmm. maa ngi am jàmm waaw. dafa mel ni boucher nga de. waaw man boucher laa may dóor fii nii. lan moo tax ñu bëgg ay affaire ay bëreeg ay affaire yooyu. waaw xam nga rek làmb dafa neex. taxaw mooy loolu noonu suñu aada la quoi. dëgg la waay ñu yàgg kaa bëgg moo tax boucher yëpp bëgg làmb. waay dëgg la waay. bilaay walaay. mais fi ma la fekk fii ci golf nii ci kër Balla gay dë Euh, diggante Balla Gaye ak Boy ñaa coow li bari na quoi wax ji bari na lu ñu wax tey su ëllëgee ñu wax leneen bu ëllëgee ñu tey naka nga gisee Boy ñaa ak communication ci digganteem ak Balla ak lu ngeen nar ëllëg. waaw Boy ñaa moom boo gisee Balla Gaye sax jàpp combat benn niveau bii nii moom moo dugal Balla Gaye ci làmb ji quoi. ma waaw ndax sa parce que moom bu faroon ñëw jox Balla Gaye cëram quoi mais dafa ñëw respecté wul Balla Gaye première face à mu ñëw am nu mu waxee quoi looloo tax nag Balla Gaye di dugal boppam ci biir làmb ji gën a fonk làmb ji. est jàngatul yéen ci seen xadar bu njëkk bi ngeen di toll fi ba fi fi Boy Niang toll ba ku ngeen taseel affronté ko xamal ko ni ko 5 secondes laa lay may wala 2 minutes laa lay may mais nag yéen moom euh, gars yi nee na lu ngeen musaa wax def ko ci heure yooyu. waaw Balla Gaye ak Boy Niang c'est diamétralement opposé bokkuñu ñoom ñaar. anima ñu duñ benn sax mu ngi mel. Boy Niang champion la de. mu ne Angleterre ak Pomme de terre. booy loolu nga foog de. billaay wallaay wa taalaay benn. boo Niang li muy wax nekkul ci moom. lan maa la wax li barke alxuraan maa la ko wax. ay sóob ñemewul Balla. wax jee fi nekk rek boo gisee ni muy waxee nga xam ne fit fit lay waxee dafa dafa tiit. day rox day lox sa buy wax. ah sama waa ji. barke yeneen bi maa la wax li. vaar am na de jouru làmb ngay xam li ma la wax. vaar am na li may wax dama koy seet. ah maa la wax li barke Serigne Touba. kon yen da ngeen a bëgg ni su ngeen demee bu ngeen dajeeg Boy Niang da ngeen koy defaral. déggoo li ma la wax billaay bar bi nii pépp ba Balla mayee mébam boobu noonu. ah boo ñaadu taxaw fu mu taxaw Balla dana ko fa fekk duma ko daan ko. lan man maa la wax lii jàpp. Eh, eh, yaa ko wax de. barki Serigne Touba ma tey la ajuma. tey la ajuma. nee na fu Balla Gaye de fekk Boy Niang dana ko duma dana ko daan nee naa ko nag vaar am na mu ni ma mu mu mu jox ma euh, rendez-vous ni tey la ajuma li muy wax daf koo xam kon wuy ma. rendez-vous ba dimanche incha allah jërëjëf xanaa sant yàlla julli ci yonent bi am contentement ak mbégte ñëw fii ci waaye tey jàkkaarloo ki nga xamante ni si tey ah mooy euh, terrain bu mag bi di GBA tere bu mag bi nag boo koy wax mooy éducateur ñoo fi ne ku ci mel ni président Pathé Keita mi nga xam moo jiite kuréel gi ànd ak Mayacine ak kuréel gi nga xamante ni si ñoom ñoo ko ŋànk ma war a ñëw nag waxtaan ak moom rek ci li nga xamante ni si tey mooy li am le premier janvier ci diggante Boy Niang ak Balla Gaye coow li nag bari na ndax maye na une minute maye na deux minutes maye na quinze minutes maye na lu ne léegi nee na li mu ko guuxal da ko yàbbi Balla Gaye Balla Gaye tamit li mu guuxal booy Niang da ko koy yàbbi bés ba naka lay demee loolu dañ koy laaj amateurs yi ak auditeurs yi nga xamante ni ñoo seq sunu people fii ci golf non fii ci Euh, terrain GBA ma jàkkaarloog Mayacine Mayacine maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar Père Mbow. maa ngi lay bëggee bu baax a baax. fii mooy fan. Ah, fii mooy GBA Guédiawaye Basket Academy. mais mooy kon éducateur yi ma dégg ci Guédiawaye te ñuy euh, euh, na xale yi ci wàllu éducation mhm. après basket ma dégg ni sax ku ci am. école boo daa jàngee am problème léegi études yi dañuy fexe ba nga delloowaat sam njàng ba pare soog a continuer basket bi. waaw waaw GBA géej mooy Guédiawaye basket académie bon ki nga xamante ne nii mooy sunu frère ñu doon fawandoo fii muy Pathé Keita mhm. donc vraiment am lu bari loo xam ne def na ko ci basket. te mu ne dara du ko jël du ko yóbbu feneen du ko indiwaat fii mu dëkkoon. mu ñëw nag ñu créé GBA Guédiawaye Basket Academy. xool xale yi nga xamante am nañ potentiel ak xale yi nga xamante ñu ngi seen kër toog. ak ñi nga xam ne dañu jàng jàngatuñu. ñu xool ku ci nekk lan lañ la war a defal ñi nga xam ne mosuñu jàng. ñu def ñu wut leen fu ñu leen dugal ñii di def pâtisserie ñii di def leneen ak leneen. ñi nga xam aussi ñu ngi jàng dem ba ci biir mënatuñu fay wala ñu dem ba ci biir gàllankoor jàpp dab leen ñu xool école bu baax ñu dugalal leen fa ñu góorgóorlu pour ñu mu am ay moyens yu baax. mais loolu yëpp aussi boole koog basket bi ko parce que dañ ne sport dafa war a ànd ak euh, euh, euh, tàggat yaram. dëgg la loolu moo a war a ànd ak tàggat yaram. Mm, mm. kon éducation bi ngeen di def maanaam xale yi néew doole yi. seen mm. ginnaaw jot seen lépp ci biir la. waaw lépp ci biir la waaye lépp aussi bon. Euh, xel mu sell ndax euh, euh, Pathé ku ko xam-xam ne doomu géejawaay la su ko neexoon ndax club yu bëri aussi soxla nañ ko ay club yu bëri aussi démarché nañ ko pour mu nekk seen président mais dafa ñëw ànd ak ay naataangoom ay nawleem ñu daan àndal fii di basket mu ne nañ leen ànd ñu ñu ñu boole suñuy doole ñu yëkkati géejawaay ci kaw. ñu yëkkati géejawaay ci kaw. ba xam nga léegi basketteur laa man. bu yàgg yow bu ko wax GBA wax wax per Mbow. waa sportif nga. Mhm. bari euh, euh, xam naa ni après demi incha allahu taala le premier. Mhm. diggante Boy Niang ah. ak Balla Gaye Boy Niang nag. coow la bari na. Mhm. macha allahu taala may na une minute may na deux minutes may na trois minutes may na quinze minutes lu ne maye na ko. Mhm. ba léegi mi ngi àgg ci ne la moom li mu góox da ko yàbbi Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 li mu góox yàbbi ko Boy Niang lan ngeen préparé ak lu ngeen nar a yóbbu. Euh, euh, ëllëg fële. père boobu foofu duñu dox sax dañuy xamal ne la Boy Niang ak Balla Gaye 2 chaise ak moo leen boole. lan chaise ak caméra. moo leen. tuutal Balla Gaye wallaay wallaay euh, Azim chaise ak caméra moo leen boole. <laughs> saa waay champion am de. wallaay Azim ba ko fekkoon muy nelaw ba mënu ko sax bërëng. loo bëgg a wax foofu sañu koo yee. non du ñu benn du ñu benn ci kattan du ñu benn ci bëre du ñu benn ci xam-xamu bëre du ñu benn ci lenn bokkuñu comme Angleterre ak Pompiteer. xam nga lu ma jaaxal. Mhm. mooy. Boy Niang dafa prouvé ba ëgg si fii. Mhm. ñëw daan seen rak. Mhm. muy Sa Thiès. Euh, suñu borom dogal làmb boole leen. moom ak Balla Gaye le premier janvier. Mhm. coow li bari. Mhm. Euh, lan ngeen préparé ak naka ngeen doo nar a doxalee bés bi ëllëg. waaw xam nga Sa Thiès ak Boña suñ ko fàttalikoo sax lamb biñ leen di boole lamb boolewu leen Sa Thiès moo wàcce boppam jël combat boobu noonu te bi mu ko jëlee aussi ñàkk a respecté adversaire am moo tax li amoon am mais da nga ni Sa Thiès ne Balla gay 2 mhm. le lion de Guédiawaye ñun ñuy dem Guédiawaye bëgg ko loolu am fu ñu ko def suñu biir xol yi mais ginnaaw loolu cofeel bi ñu am ci moom du dëkk Guédiawaye rek mais dafa mën a représenter géejawaay xam li mu doon xam ki mu doon te bu boobaa aussi boo ñaa dina xam ne chaise ak caméra moo leen boole lamb boolewu leen mais mais combat bi su ëllëgee est-ce que mën ngeen cee xaar ci mardi taalib bu bu njuumte amee naka ngeen di def wula sóor ngeen lépp que ni Boy Niang dafa xaw a doy waar. Balla Gaye pare na physiquement pare na psychologiquement pour daan booy Niang xanaa déggoo lu ma la pare na ci bépp anam pour daan ko. kon daal Boy Niang moom mënul am ci yéen sax waaw lan moo tax boo ñaa di wax waxeet xam nga fàtte woon nañ ko depuis jamonoy bu yàgg wax waxeet bii lay door a ngi door a ñëwaat. wax nga dëgg de lan moo tax may naa ko 15 minutes may naa ko une minute léegi ah man daal du bi demee rek baax na moom xam na xam na ne ki muy jàkkaarloo gaynde la jàkkaarloo muus de te muus lu fekk gaynde di nelaw mu koy yee. muus lu fekk gaynde mu ko yee tey maa ngi woon fii ci euh, terrain GBA euh, ma taxaw ak Mayacine Mayacine mooy kan doomu ndey Pathé Keita nga dégg li mu wax ci affaire éducation li mu wax ci li nga xamante ni tey xale yi néew doole jotuñu seen gannaaw war a ñëw fii euh, boo ko boole sport étude lañ wax de. Mhm. étude dafay ànd ak sport. Mhm. suñu borom dogal tey ma fekk ko fii laaj ko ci diggante Boy ña ak Balla Gaye 2 lim ci wax leer na sunu people ñu ngi koy xaar. ma bëgg nag gaa yëpp abonné ci chaîne bu am doole bii. chaîne bi nga xamante ni si actualité rek lay wax chaîne bi nga xamante ni si tey boo ko dee déglu doo doyal jërëjëf. jërëjëf xanaa sant yàlla rek jullu ci yoon ci yàlla Mouhamed amaat ak mbégte taxaw borom xam kooku mooy kan kooku mooy ma jëmb dibiteeri Malick Gakou yaakaar naa ni kenn dootu ko laajte euh, euh, wax waxaat nag du bari wax. ndax ci li nga xamante ni si tey ci loolu la ñu war a waxtaan mooy lii defal réew mi waaye lii defal sport tey bu ma jàkkaarloog moom war a waxtaan ak moom ci lambi Balla Gaye 2 ak Boy Niang deux jours moo des ci lamb ji coow li bari lool coow li bari lool ñu am nag lu bari luñ ci war a recadrer waat ba bés ba suñ ci àggee mu taaru GNC du am problème mbër mi du am problème amateur du am problème mais supporter du am problème tey dama koy jox suma micro mu nuyook waa Sénégal nuyoog sunu mbokk internautes yi di kontaan ci abonné yi mais di kontaan ci chaîne yi ma jëm maa lay ziar. ñu ngi lay siyaar di la baalu àq di siyaar waa axlu làmb yëpp di wax ni Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg waaye yàlla na sport yëpp am jàmm rawatina làmb amiin may wax ni ñi ngi jëm ci bis boo xam ni jour ji mooy un hmm. préparé mënatu fi am pare fi am nga ni ma préparé xajatu fi pare fi am pare fi am waaye Alil eh sama rakk ji ku noot gaynde noot segg ak mbëfër daq ñay mu daw. ah, ah bu soo ak bëy daal ku ñëw moom la yey. mais kon pare ngeen loolu kenn waxatu ko biti la fanaan ma lay wax ni daal ah làmb ji jàmm rek lañ ciy ñaan ndax nag Sénégal jàmm rek a fi xaj. rawatina ak lu làmb. Euh, ma gis euh, comme li ma la wax léegi ne la coow li dafa bari c'est-à-dire coow li dafa bari mooy man dama am euh, confiance wala ma am idée yi di waxtaan ak experts yi. experts yi mooy lan mooy borom xel yu rafet. yi nga xamante ni si tey bu action amee euh, euh, euh, ñu xool nan la ñuy xool fexe ba traité action boobu ndax ci diggante Boy ñaar am na ci camp Boy ñaar mais am na ci camp Balla Gaye 2 muy kàngu yi ma gis ni kàngu yooyu dafa mel ni dafa indi coow CNG am discussion buñ ci def kani ala kulli haal lu mën a am mooy kenn du ko dugal estat te mbër yi nga xamante ni si tey ñoom ñooy ànd ak sëriñ si ni ñoom ala kulli haal ko dugal stade ndax kàngu la rek danger amu ci dara amu ci lu dul sunu sëriñ la ñu war a ànd ak moom mu ñaanal ñu sunu borom may nu ndax noo gisee loolu ak ban réaction nga ci def. waaw jërëjëf Mbaw xam nga euh, ku boot bukki xaj baw la te Balla Gaye numéro 2 bàjjo bi dafa doon yàgg doon miracle ci làmb ma ci profité du nuyu président Bira Sène di ko ah, waaw président bu CNG. defagul deux ans ci làmb ji. bi ñu ko ko denkee ak léegi ñuy ñaan yàlla yan bi oyof ci kawam. mais maa ngi koy dolli xel di ko wax ni ko bu mu demee xelu jàmbur encore bu mu demee bu mu farfarloo na tëddee njaaxaanaay rek ndax nday ji seex njaaxaanaay lay tëddee. Balla Gaye numéro 2 moo fi indi woon tërë yi muy décor ci làmb ñu fexe ba jëlee ko fi mu ànd ak muridina ànd ak bamba ñu ay xale. ne bu ndaw ba booy boobu fàtte woon naa ko yow ba jargandalu àdduna jóg ñu fexe ba jëlee aar boobu ci làmb mu ànd ak rakkam image boobu doy waar bu arbitre di siffle nga xool loolu boobu couple ñaan ñu bokk ndey bàyyi tuwaar kàll ñoom ñaar ñëpp ub làmb mu nekk lu doy waar ñu fexe ba jëlee fi loolu Balla Gaye ñëw ànd ak sëriñam mbaw segam dégal waajo bi moo mën a dem ba ci àll bu xonq ba tiim guy teg ay ay ay ay rabbam ak i bërëm di fëgg di tudd turu Balla Gaye numéro 2 di tudd turu ndeyam ak turu baayam estament Balla Gaye ah ci image dem na ba ca àll bu xonq ba jàkkaarloo guyam teg ay poñtam di dóor naan Balla Gaye numéro 2 Omar Sakho kon segam moom mi nga xamante ni toir kàll li muy dund na ko pare moom man loolu estament Balla Gaye numéro la revanche su Guédiawaye la ni mu daane waa Pikine Boy Niang la daane waa mu doon revanche boo xamante ni làmb jooju fa làmb rek lem te bu ñuy wax làmb nag mystique da cee yàgg ba pare aar bu mel noonu dafa yàgg xorom la ci nag la ci bira seen na demee xelu boppam Balla boobu ñuy wax Aline Sarr ci làmb la ko bàyyi woon Balla yàgg na ko indi làmb bu ko fi bëggee jëlee du ci programme bi la ko fiy jëlee lambi dër bi la ca départ ba la déggoo bëgg a yuus maanaam. dama ko seetaan stade Demba Diop mais seetaan naa ko aussi amitié. dem na amitié dem na Demba Diop ñëw na fii ci arène nationale bi muy koo xam ne yàgg na ànd ak Balla Gaye bokk ci mikaayam mbaw lamb ba mu fayee cent millions la doon ay caaxaan am na mbër yoo xam ne boo leen laajoon bakkal duñ jox la ko. malay wax ni la làmb ji Balla Gaye fooyu ko tey fooyu ko ëllëg waa CNG côté boobu nañ ci jël seen ay matukaay xam ni benn instant jamono bi ñu toll ni tembe tembe tembe Balla Gaye dafa pare ci côté yëpp ci wàllu ci mikaayam bu buñ ci wax ci jamono bii nañu bàyyi ba lii passé segam dégal moom moo njëkk a wax ci affaire kàngu loolu bu ñu ko jëlee teg ko fee day mel ni ñoom tëddewuñu njaaxaanaay xam nga lu ma jaaxal hmm. mooy barki démb Boy Niang dafay def open press ma gis ku sol kàngu yor ay petaawam ak ay xaawam comme ni ko sawaay di defee ma gis open press bala Gaye 2 aussi kooku yor kàngu yor ay xaawam yor ay petaawam nga am lu am solo loo wax léegi Bira kuy ñaan loolu moom ngay ñaan kuy waxal moom ngay waxal loo ko mën a dolli ci loo xamante ni sii mu jéem a sauver askanam c'est ma sauver lamb ji ba yii jàll ñu soog ko waxtaan. waaw mooy mbaw comme li ma la wax rek ni la président euh, Bira Sène yépp yëpp moom la ñu waxtaanal ndax lamb ji moo ko mën moo mën a yàq mbaw làmb ji du ay caaxaan làmb la joo xam ne làmbi capital la encore làmbi coow la Balla Gaye toll ci digg ndëndam boo ñaar toll fu muy débuté di dugg ci coup de grand kon ak lu mu mënti xew président Bira Sène waxu kàngu yooyu na ko jël teg ko ne ba làmb ji jàll xam ne nit bu fekkee yàlla dafa laa booleeg moom mu bokk sa ci mikaay nga àgg yàgg am ci moom yaakaar jël say million di def ci moom benn bis jot ñun la kii lam daan defal du la ko defal wala kii dugg mi na ànd ak yow ànd du ko dugg mën na nuru far ak fi làmb toll te ak fi làmb toll te moom nurul kuy far na tëddee njaaxaan naay rek ñoom bu ñu amee seen i kàngu nañ ko sol ñëw Balla Gaye moom sax bu ko neexee na sol kàngu ñëw boo ñaa sol kàngu ñëw bu ko defee ñu dem ci fair play amateurs yi kontaan ñu tëgg mbëri fecc bëre ci kattanu yàlla ak mbaaxam Balla Gaye numéro 2 yàlla may ko ndam lu rëy géejawaay feete ko fi mooy Balla yàlla may ñun waa waay moom la ñuy ñaan xëy na yéen waa waay moom ngeen di ñaan mais Boy ñaa est-ce que yéen koy sóor ci ay euh, niveau am a ngi koy sóor ci ay fooram que ni lu ne mën naa am bu ëllëgee mais yéen li ngeen di ñaan yàlla mooy sunu borom yàlla may leen dam mais ci kaw ndam loolu est-ce que yéen a ngi sóor booy ñaa à 100 pour cent vaar nag am na sama rakk nga de waaye vaar am na de. Hmm. waaw Pao Balla Gaye numéro 2. Boy Niang ñun li ñu ci li ñu koy sóor mooy. di ko ñaanal yàlla mu am jàmm Balla am jàmm bu bis baa mu dëggal boppam ni mu communiqué mu jëfe ko ndax Balla Gaye ci loolu la koy xaar mën tax Balla Gaye du ko xaar deux minutes une minute la waxoon Balla Gaye numéro deux dina ko xaar deux minutes su ñëwul Balla Gaye dina as suuf raxasu dureeku fu mu nekk mu fekk ko fa bu ñu defee runkum ndaje àdduna yëpp nangu ni làmb bu ñu ko wax Balla tax. xam nga lu Boy Niang wax. dégguma ko de. nee na li mu góox. day xaar bés bu ñëw mu sotti ko Balla Gaye waaye li Balla Gaye góox na xaar bés bu ñëw mu sotti ko Boy Niang ah ma jëm waaw mais gallaxndiku yàbbi am na waaye gallaxndiku wanaasu am na boo ñaa am naa yaakaar ni gallaxndikoom googu loolu mu guux dana ko gallaxndiku te dana ko wanaasu mbaw ey ba jëbi ey Balla Gaye dana ko dana ko gallaxndiku wanaasu mais du ko gallaxndiku yàbbi guuxam boobu moo koy wanal boppam kooku mooy ma jëm jee nee na dana ko gallaxndiku wan waaye du ko gallaxndiku yàbbi muy booy ñaa liñ doon wax nag lii la luy defar réew li ñu doon wax nag mooy liy defar làmb waaye li ñu doon wax mooy liy defar sport parce que fii ñu taxaw nii tey di dibiteri Malick Gakou bari ki démb la fi def vidéo bu Sénégal gépp ak accepté tey nag li mu wax moo gën a pirati ndax li mu wax dafa dugg ci domaine nan la ñuy def ba làmb taaru nan la ñuy def ba biraseen mi nga xamante ni si tey kuy ñaan moom ngay ñaan moo war a defar te am na foo xamante ni si su fa tolloo dafay nuru yàqu-yàqu bira ñu ngi lay ñaan nga xool nan ngay sauver lamb ji ñu ngi lay ñaan nga xool nan ngay gérer lamb ji ndax neexul nag nga préparer sa combat ba fii am benn affaire bu ñu ci ni coppet ni loolu mënatu la ne ndax yaakaar naa ni suñ ko defee mën naa indi défaut ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ndax xam naa ni dëgg neexul sunu people moo ko yor may nuyu waa kër Sala Mbata di nuyu sama waa kër di nuyu Nday mbaw di nuyu waaye nag ma jëmb cim ay naan la andi baas yi jërëjëf tey maa ngi am contentement ak mbégte ñëw fii ci marché film mi fekk fi xale yu doy waar xale yoo xamante ni sii yaakaar naa ni seen jom ak seen fulla ak seen ngor ak bëgg Balla Gaye 2 tax na su ma diggee daa leen dëpp micro waaye daa leen xamal ni leen am ngeen combat bu ngeen musul am ci diggante Boy ñaa ak Balla Gaye Boy Niang nag maye na une minute maye na deux minutes maye na quinze minutes maye na waa jekki-jekki ma dégg ñu ni moom li mu guuxal Balla gay ak li ko Balla gay guuxal su ñu tasee ca làmb ja kenn ku ne da nga ko wan sa morom léegi nag loo xam ma dem ma dem gën laa xam boppam. ñoo ngi nii yéen a ngi nii sunu people a ngi nii Abdou Jobal maa ngi lay ziar. waa ñu ngi lay fay Baye Père. Baye yaa ngi jàmm sant sëñ Tuubaa. diggante ak Balla Gaye coow li bari torop qu'est-ce qu'il y dafa prouvé ñëw signé ak Balla Gaye 2. Balla Gaye 2 ni bëgg naa Boy Niang ñu war tase le premier janvier noo gisee bés. waaw jàpp daal rek. jàpp da loolu yomb waaye boo ñaa wax la fi làmb ji waxi la wax kese la si am mais duñ jaay neen daa waxal Balla Gaye ñu ne ko wan na maamu yàbbi ko booy ñaa yéen seen seen guux yéen seen guux nu ngeen koy def guux bi ñu ne ko wan na mbaamu yàbbi ko yéen seen guux ñu ne koy wan nga dafa waxoon ni may na une jekk-jekk mu ne may na deux minutes jekk-jekk mu ne may na quinze minutes guux bi door a ñëw looy wax ci lool waa fil bee toogul rek ndax afale moo dafa ay minutes ay deux minutes ay trois minutes mooy gëm ngeen seen bopp. waaw yow ñun ñooy ñu ñuy waa Zappé. <laughs> Zappé lan ñu ñooy waa Zappé Keñoo. parce que marché picnic. Zappé Zappé Keñoo. loolu lu mu lu mu firi. Zappé Keñoo. Ahmed loolu mooy lan. Ahmed waxal luy loolu. mooy lan la. mais Zappé Keñoo fii tur la. te ñun Balla Gaye rek la ñuy topp. dëgg la booy naa combat bi mu jël ay. papam boobu moo ko si dugal xaw ma déggoo ak. xaw ma am lu baay baayam wax xaw ma lan. Balla Gaye Balla Gaye papa mbër la woon Double Less koo xamul war nga ko mën a dégg si. déggoon mbër la woon déggoon xamul dara. ah maa ko wax man man man sas. xamul dara du mbër du dara. maa ko wax. waa Abdou. waaw naka la kay. waaye waaye déggoon ko da nga xam déggoon lu nar bés bu lu ngeen nar. saret yi dama bëgg nan ngeen di def. dañuy sànce. dañuy na ah? nan leen di linjaa. dina xam ne seen yoon neewu si. lan may linjaa. nan leen di linjaa fépp nan leen di linjaa. Boy Niang Boy merci loolu mooy euh, loolu mooy fan club bi nga xamante ne moo nekk fii mars fii mi. xale yi nga xamante ni ñooy borom saret yi boo gisee li ñu def nii tey nga xam ne sport moo man lu ne barke yoon mais xalal bàyyeegu ma de golf laa jëm ca Baye Fall ya waxtaan ak ñoom tey maa ngi woon fii ci saret yi boo ñaa waa Pikine xaar leen ba maa ngi ñëw ak sunu people mbokk yi dégg ngeen fii produit sexuel bu ne waaye ngóor a kàttan moo jël ndam li moo jaaxal ñépp waaw ngóor a kàttan li tax mu jël ndam li mooy dañu ko defaree à base de dinjeer petit cola bisaab ba ci reenu senjeen waaw ngóor a kàttan dafay fàcc lu jëm ci wàllu ballonnement de ventre wàllu constipation maanaam seere wàllum faiblesse sexuelle maanaam da ngaa tëlee ngóor a kàttan nii moo ci baax ba noppi dafa lay jox appétit sexuel maanaam saa yoo ko jëlee da ngay am kàttanu sëy awra ba noo ko bëggee noonu nga koy defee mbirum éjaculation précoce nag moo ci gaaw maanaam bu fekkee da ngaa gaaw a yëg sa bopp di gaaw wàcc ngóor a kàttan mi moo ci gaaw li ci gën a neex nag mooy amul benn effet secondaire maanaam mën nga ko jëfandikoo te du la gaañ benn yoon wàllum douleur wallum jabet wàllum sinusite nag moom kenn demul mu des da koy dindi ba mu set wecc lu jëm ci biir boo xamante ne dafay metti nag maanaam biir bu lay sonal boo ko jëlee daf koy nettoyé ba mu set kon nag mu ngi noonu képp bëgg ci ngóor a xamante ne wàllum kàttan moo ci mën ci Sénégal woote leen ci numéro téléphone bi 77 240 97 97 kon nag ngóor a kàttan mooy buuru produit kàttan yi